kii yi saa yi Samba noppi lépp par benn benn. lii lépp la jël par benn benn barki yàlla. li ma la c'est-à-dire ñëpp war a génn parce que yow Kébé yaa ngi nii papa doy dem duus. ñëpp a. waaw moom moom voilà duusam duusam nee moo ko moom na du ko def rap tey kenn du fa dem. kenn du dugg deuxièmement ba. nu mu ndox bi. dafa amel waa SDE gis nga ñu ne moom robinet moom du ko amati. Ah, a naam naam. ça na ñu la doon ñu doon gàddu ndox mi fi koñ bi la lu ma leer lu ma leer li tax mu euh, ñu mu ñàkk bakkanam deret bi mu bu bari parce que deret boo xasee perte lu bëri pour mu dundaat problème mais bu doon ba mu a jël nañ taxi bi urgent daf ko ci noonu yóbbu ko mën a sax bakkan bakkan bakkan dana racci de xëy na xale bi dina gaañ mais